yàlla euh, di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu tey bi su tey bi ndax nga nekk maire ci sab dëkk sa jeunesse am manifestation parrainé la ko parce que barki démb bayti ñoo ma parrainé woon tey jii nootoo moo ma parrainé demee guy jamaa la après yaa Kër Mbir Ndaw e donc loolu lu ñuy rafetlu la parce que mënoon na ñëw wuti beneen parrain mais vraiment maa ngi remercier jeunesse bi xañ na gis nañ ni ñi ngi liggéey teg nañ commune bi ci yoon ñu def ñu référence moo tax ñu tudde ñu tey ji événement bi ah, fu ñuy voilà donc jafe-jafe bi ñu am mooy am nañ stade bu bees ñu ngi koy aménagé clôturé nañ ko commencé nañ fa jouer benn tournoi tournoi boobu àggagul mais final am mi ngi ñëw mais nag ñoom dañoo def seen final yoo xam ni. parce que moo leen gënal léegi euh, nawetaan final final sectoriel parce que dañuy def final yoo xam ni du aaje service de l'ordre ñoom xamante seen biir su defee yow da nga leen accompagner en tant parce que bi ñuy commencé final bi ñëw nañ ma ma dimbali bi nekk ci biir tournoi bi tam ñëwaat nañ seet si ma ma dimbali leen ji final bi ñu paree waat ma ko kon donc delloo ma njukkal maa leen di sant di leen waaw tournoi yi ñoo gendarmerie gisoo fi police te ñoom ñoo ko commencé ci A ba Z tey jii ñu ngi nii ñu ngi koy football premier mi-temps bi jeex na ñu ngi dugg deuxième mi-temps ku ci nekk yaay xool nekk sa sa gendarme bopp pour affaire bi dem parce que bu fekkonte ni ay zone la y a des tendances te yaakaar naa ASC dañ cee war a yokk économique maintenant parce que fo bi rek waratu la nekk euh, base u euh, sport dafa war a nekk association sportive culturelle et économique parce que nawetaan yàggatul c'est pour un mois deux mois mais nag ASC yi nañuy participer économiquement ci la euh, bon marche des commune parce que ils attendent au maire de les financer maintenant ñoom tamit war nañoo dugal seen loxo ci développement commune bi maa ngi remercier jeunesse su Notto Goudiama plus particulièrement la jeunesse de toute la commune xam ni liñ ma defal tey kontaan naa ci parce que nekk maire te parrain bu jun ñu jox la ko tamit yombul donc maa ngi leen di remercier te xam ne stade bi incha allah dinañ ànd ko bu ci anam yu gën a rafet merci